am ya nga xam ne yow jullit waruloo ko ñàkk xam ci sa diine te boo ko xamut am bakkaar boo ko xamee jëfe ko am ngërëmal yàlla yépp fii lañ la koy jàngale na ngeen partager fii nga xam ne mooy YouTube bi ngay dégg sa nopp ca laaju Serigne Fallou Ndiaye ca Pikine mbokk mi dafa génn àdduna ñim fi war a bàyyi te ñu war koo donn mooy ñu bokkal ndey ak ñu bokkal baay pour tontu ko ña nga xam ne ñoom la bokkal baay dañuy don ñamu bokkal ndey dañuy don ndax bokk ya leen waroon a tee don nekkuñu fa kon ñaari catégorie personnes yooyu ñoo koy doon alal ja bu doon milliard tamit rek ñetti xaaj lañu koy xaaj boole ñaari xaaj ya jox ñañu bokkal baay góor ñaar jigéen benn benn xaaj ba ñu jox ko ñamu bokkal ndey ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn noonu lañ koy defee ko defee lu nit ña bari bari rek ñu def ko cër yu baree noona ba fexe ba mu doon góor gu nekk am ñaar jigéen bu nekk am ca benn ñamu bokkal kër ndeyit ñu def ko divisé ko rek nu mu man di toll góor gu nekk am ca ñaar jigéen bu nekk am ca benn noonu lañu koy defee wasalaamualeykum ca laaju sëriñ Masamba Mar ca Amérique sëriñ Masamba ma ngay laaj foofe ca Amérique waxtu wañuy rey seeni xar ak waxtu wi ñuy rey sunuy xar ñun juróomi waxtu la ñun waxtu wi ñuy rey sunuy xar fii ci Sénégal di booru dix heures day fekk ñoom ña nga ca cinq heures du matin bët setegu fa te it yàlla daa def foofa dafa am bërëb boo xam ne fa ngay commandé sam xar wax ban heure lañ la koy libéré ndax foofa dañuy tere ko rey ca kër ya réew yi am doole yépp noonu la ñuy def pour tontu ko dañ koy gaaw a tontu ndax mu gaaw a dugal commandam ak wax ban date lañ ko koy libéré ak ban heure lañ ko koy libéré pour tontu ko na commandé pour ñu libéré ko ca seeni waxtu ñoom yoor-yoor fa ñoom waxtu wa nga xam ne mooy doon booru dix ci Dakar doon ab yoor-yoor ca ñoom ñu doon ñu war ko fa julli ñoom ca seen ab yoor-yoor na ko commandé. trente minutes wala une heure de temps ginnaaw seen yoor-yoor ñoom su ko defee bu jotee ba ñu dem julli ji am nañ fay jumaa ak i jàkka bu ñu julli jee ba pare daldi laaj seeni commande ñu libéré leen ko ginnaaw seen ak julli na ko commandé ca ñoom ca seeni waxtu ca une heure de temps ginnaaw seen yoor-yoor une heure de temps boobu ñoom ña ngi koy nekk ca jullikaay ba bu ñu jullee ba pare rek mën a jot seeni commande dali dem tabaski ni ñëpp waaye nag buñ ko tollaleeg tabaski ak Dakar ndax su boobaa day doon guddi ci ñoom te ku ne fa nga nekk waxtoo fiq dalaa joxoñ ca jant ba na muy doxee fa yow waxtu sàngam la yor yor fi nun day fekk nun jant bi nekk fii rek ci waxto yor yoor doon boori dix yéen yor-yor fa yéen day fekk nun nu paase sunu yoor yoor ba teg cee juróomi waxtu yéen ngeen doog a yëgsi ca yoor yor kon su ngeen tolloog ñun ci guddi ngeen di tabaski te du noonu ku ci ne rek fa yow ca jant ba na muy doxee fa yow noonee moom ngay doxale say waxtu ca sam réew su ko defee paaseel sa commande ñu ko libéré la ko àjjuma waaye nag nañ la ko libre ginnaaw yor-yorub ajjuma ca yow nga jot ca waxtu woowa bu ngeen julli jee ca seeni waxtu su ngeen ginnaaw julli ga ngeen jot seeni commande dem tabaski ji noonu lañ koy doxale noonu lañ koy defee ca ka nekk Amérique ka nekk bitim réew moo xam Amérique moo xam beneen réew la nag te joxe ñu jëndal ko am tabaski ci Sénégal reyel ko ko ca senegal kooka bu joxe ndigal rek joxe njëg rek ca Sénégal ñako koy reyal ca Sénégal bu waxto wa waa Sénégal di reyee jote ginnaaw reek imam su boobaa ñu dal di rey yéene ko ngir e, kookee joxe ndigal la te joxe njëg ga su ko defee yool ba yegg ca moom lépp ànd baax ka ca Amérique wax naa la nañuy tabaske ka ca Sénégal wax naa la nañuy tabaskee ka joxe ndigal ca Sénégal moom tamit noonu rek lañ ko koy defal nañ koy defee ca senegal rek lañ ko koy defalee yàlla dina àggale yool ba na mu ko bëggee yal na yàlla nangu yool yëpp wasalaamualeykum. ca laaj yu yóbbante ba ñu jaarale ca Serigne Moustapha Ndiaye taskiru Saba mbokk ma ma ngay laaj mu ne dafa yor njàppam. waaye nag sangoon na saafara bopp alxuraan lañ ko binde mu doon laaj ndax njàppam toj na waaw wala déet pour tontu ko su fekkente ne ba muy jàpp la mu yéene woon ca njàpp ma mooy njàpp ngir jaamu yàlla te ba muy sangoo saafara sax loxoom fi tengali nekk maanaam bu doon dankab ceeb fa dankab ceeb ba di laal ca loxoom fenn ci ca ñaari loxo ya laalu ca bërëbab bantab tuurukaayab ndox ba kon njàppam tojut te lay waral toj njàpp yëpp dalu ko a ah, su boobaa njàppam tojut mën na caa julli jaamu ca yàlla na mu ko ca yéenee woon par contre bu dee ba muy sangoo saafara sa nag loxo ba laal na bant booba nag njàpp ma toj na wasalaamualeykum am ya xam ne yow jullit waruloo ko ñàkk xam ci sa diine te boo ko xamut am bàkkaar boo ko xamee jëfe ko am ngërëmal yàlla yépp fii lañ la koy jàngale